Ismaïla Major Fall ministre d'État ñu ngi lay sant di la gërëm may nga ñu occasion ñu wax ak président de la république ci jafe-jafe yi ñuy dund fii xam nañ ne ça fait plus d'un an travaux yi kenn laalu ko donc merci beaucoup euh, PCA du pôle urbain de Diamniadio Doudou Meissa Wade loolu nag bi ñu ko bi ñu bi ñu wax ko président xamal nga naka carrément sey nit waxuñu la li am ñun ay jafé jafé la ñuy dund xolal demal ko la ban guymur ci ay poto poto la ñuy nek donc tay vraiment monsieur le ministre li nga def lu rafet la nga yóbbuñu demuñu fa pour mu may ñu xaliss

te nag Tëngéej il est temps gars yi xam ne ñu bàyyi maanaam diw dem seeti na diw rek ah parce que lii moo ko fa yóbbu ñun loolu taxunoo jóg li ñu intéressé xam mooy lan mooy suñu dëkk suñu dëkk nag ku koy taal taxunoo jóg ku koy defar moo tax ñu jóg parce que dañu war a xalaat après ñun suñu ay doom après ñun su ay rak ndax tey boo ma gisee ma taxaw fii tey dem si président wax ak moom moom mu ñëw la mu waxantex man mu def ko kon man lamu lamu bëgg ma def ka dina ka si jappalé si carton suñu borom. jàpp na réunion vendredi suma paré ak réunion bi inshallah limay def dina ka wax fofu te ñëpp dinañ ko dégg l'essentiel essentiel que ku jàppale Tëngéej ñun dinañ la jappalé ku jàppalewul Tëngéej bëgg taal dëkk bi duñ la jappalé té lu nu man pour xéx ak yow jàkkaarloo yow dinañ ko def. bañ jàkkaarloo président dañu bolé suñu kaddu Tëngéej rek ñor ñu ñu ñor si ban fan pour Macky Sall mu defar Tëngéej né ko ñun defuñ la dara ñun dëkk Kumba Lamba fii ñu dëkk nii moo ñu ñor bu dee xaalis kese teguñu fi suñu tànk bu dee lu mu mën a doon lu dul liggéey Tëngéej gisuñu ko ci séance tenante bi Macky Sall son excellence jël portable am directement au la district de Promoville mu ne dina ñëw Tëngéej commencé liñ naan chantier yi te tey boo ma duggee léegi en ville ak si Thiawlène bii Lamine dëkk lamin kontaan nga wala kontaanoo parce que ku dem tey ville bi gis na ñu ngi koy liggéey hmm. chantier yi démarré redémarré na ñu ñëwaat tey fii ci Dangu Sud axe bi nga xam ne mooy jàkkay Tukulër jëm Dargu Ndaw Fass Conteneur ñun dañ ko woo te président ñun wax nañ ko ko bañ fa demee dara ñoruñu defaral ñu tëngeej fu ñu dëkk lañu am ñun nag dañu dañu boole suñuy doole nekk ay ndaw tëngeej ñor ñu ñu dem wax ko président te ñu ngi koy félicité parce que liñ ko waxoon def na ko. waa visite bi liñ ci mun jàngal jàngat mooy am na ay chantier yu am solo yoo xamante ni président Macky Sall song na ko fii ci tëngeej. mun nañu wax ne sax Tëngéej moom ay chantier yu bari la am na ci nag yoo xam ne pare nañu gis nañu tali Youssou Mbargane bi pare na gis nañu autopont yi defar nañ ko gis nañu léegi terre bi muy traversé dëkk bi te empêché wu nit ñi di dem ak di ñëw donc am na chantier yoo xam ne pare na ñu ngi ciy sant yàlla di ciy sant président Macky Sall waaye dafa am chantier yoo xam ne dafa des mi ngi mel ne route nationale bi loolu nag bi ñu président recevoir audience dama àndoon fa man ak euh, Doudou Maïssa Wade

biñ ko waxee chantier yi ne ko autoroute bi ne ko euh, euh, route nationale bi travaux yi dañu taxawoon immédiatement la woo waa mobile ñi nga xamante ne ñoo yore chantier bi mu woo leen ne leen na travaux yi dina démarré waat ci lu gën a gaaw bi ko waxee nag ñaar ñetti fan rek gis nañu ne chantier bi démarré waat na gis nañu ne euh, camions yu ñëw na entrepreneur yu ñu ngi fii ñëpp a ngi fii liggéey bi démarré waat na loolu nag ñu koy sante di ci sant yàlla tamit bu baax Why? daf ñuy wax tamit né dañuy euh xol yeneen chantier yo xamné dafa am solo ci dëkk bi mu tali bi nga dugg guy mourid romb Arafat ba génnaat fi ci tali bi bobu tamit gis nañu euh, dañ ko def concassé ak pavage mais concassé ak pavage mëno ko ci taw bi tax ñu su nawet bi octobre ñu commencé ko travaux normalement mi durer juste 3 mois bi tamit président tamit na pour euh, euh, projet yi nga xam mi ngi nek dans la commune du Nord euh, mel ni tali bi euh keur Gabin ak yi duggu dugg ba ak yoy dem Dangu Nord yoy tam président joxe na instruction pour ñu commencé wat ko ci lu gaaw audience bi nak liko ko sabablu mo doon Tëngéej mo ñu fa yóbbu woon waxu Tëngéej lañ fa doon wax waye tam audience politique la parce que ñun fi ci est bi bi ñu defaatee analyse résultat yi man ak sama rak sama xarit euh, Doudou Maïssa Wade bi ñu analyse bi dañu gis euh, fi à l'est so ñu ñu 17 pour cent bi Doudou Albé ak man 43 So 43 ak 70 ci local yi wax 43 ak 17 pour def 70 donc 30 pour xam dañ wuri dañ ko fu ñu 30 pour cent ko xolé dañu gis ni Seyga Ndoye la mi am 12 gis ne Lamine Diop la Lamine mi am 10 gis cent euh euh aruna sar la aruna sar mi am à peu près bon tam 9 lolu mo joxé 30 yi donc 30 yoy nak yooyu ñi ko incarné la wax président de la République ma ñaan ko président pour ñu recevoir len en audience waxtaan ak ñom ñom tam nak biñu démé nak nag ñu wax fa nak wa Tëngéej ñu wax fa waxu Tëngéej wax fa intérêt waxu ñu fa vraiment c'est waxu bop wala seen waxu intérêt personnel. bi ñu défé présentam déggul déglu leen bu bi leen président dégglo ñu ni ko nag dinañ ko jàppale. dinañ ko jappalé ci ci ci politique gu Sénégal dinañ ko jappalé ci élection législative lolu mo taxone ñu ñëw waaye nak ñom tam dañ néwon nak ñom nak bala ñoo def déclaration nak avons dañuy le président nous bëgg mu le chantier yi redémarré war na Tëngéej moo tax bi bëgg chantier yi gis ne li président instruction yi président wax ñu koy exécuté nous avons ñu ne léegi nag mun nañu def déclaration pour ne dañuy ñëw au côté du président de la république pour jàppale ko ci liggéey bi. fi mu nekk nii projection locale yi avons nag kenn waxul ne élection locale élection législative la mais si def élection da ngay am nattuwaay da ngay am situation de référence su ma jëlee locales yi comme situation de référence laay wax locales yi ñun waa Benno Bokk Yaakaar ñu ngi amoon fii 43 pour mi ngi amoon le maire Albe Ndoye mi ngi amoon 48 virgule 14 man maa ngi amoon 14 euh, virgule Doudou Maïssa mi ngi amoon 13 et quelque donc ñun rek ci Benno Bokk Yaakaar amoon nañu 43 pour cent ñoo raw fuuf Yewwi fuuf 17 pour cent la ñu amoon ñoom ñi gagné léegi nag euh, suñu.

du nit ñi dañu ëpp nit de déedéet ñi am maire bi ñu ngi am 17 pour cent ku am 17 pour cent kañ du yow yaa ëpp nit 17 pour cent mooy amoo sax quart bi amoo sax 25 pour cent ñi yore maire bi ci Rufisque Est ñu am 17 pour cent donc ñun Rufisque Est mun na nañoo liggéey yaakaar naa ne suñu liggéeyee victoire bi fi ma mun a nekk lu yomb.